أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني عيسى بك وذريتا من الشيطان الرجيم ziar général bu déndé dañu koy amal at mu nekk atum ren ji dal di nañu koy amalati ci dëkk bu sell boobu di déndé yi déndé yi diggam ak Touba nekk ay kilomètres yu néew mu nekk dëkkub Serigne Ahmadou Ndumbe xàbban nekkoon kenn ci Serigne Touba Cheikhul Khadim ziar bi ñu amal ko ci teewaayu xalifa Serigne Ahmadou Ndumbe Xabbaan di Serigne Ibrahima Khoudia Mbacke taalibe yu takku ci njabootuk Serigne Ahmadou Ndumbe Xabbaan di ko teewee mu nekkoon ziar bu xumb dundal njaboot gi di ko dundal ci jàng alxuraan jàng xasida salaatu ala nabi waaye amal ay bernde lool yi tax kenn ci doom yi dëkk boobu bi woy juram nekk ku ñu fa ràññee lool ci liggéeyal Serigne Ahmadou Ndumbe Xabaan ak njabootam guddi ak bëccëg lenn du yitteem lu dul sàkku ngërëmal Serigne Ahmadou Ndumbe Xabaan ak njabootam mu di Baye Cheikh Guèye doomam ji di Muxtada Guèye ñu gën koo xam ci Muxtada Guèye dendey décor moom it daal dinay dundal ci kër waajuram amal ay bernde yu takk lool jagleel ko mbooleem ña nga xam ne teewe woon nañu ziar boobu bii te teew ci bërëb bii baana li kulli man la saraaw an imtidaal muntaqa falaayaatu amadaawat kutubama awa ilayhim suul baraaya wa zaman نبينا الماي ما كل ذن حنا كما قبل منا متزن محمد صلى عليه ذو القدم تزر مني دوام القدم أحمدنا المختار كفى الضررا لخير ناوي أبدا وقررا أبقى سلام ربنا المقدم على الرسول والنبي المخدم إن ابن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا رحيم رب العالمين سرمدا على جل العالمين أحمدا يمنى بالله غاد البركات لسكنات الأسياب الأركات ذاب الخادم نور الصدور تنوير موجر السموس والبدور ينقاد للمختار ما انقاد الكرام لو بكد قبل كد من مرام رفع راقي رفعا فاقا waxalata safa wal faqa ziyaarub Dendey nag ci taarix dongay tarbiyu Serigne Modou Xaban ñoom ñoo ko taxawal ñoo daan def daje def ziyaar bi suñu borom di ko jëmmal euh, muy dox ba fi mu yegg si tey te loolu yi mënees see waxte kenn tudd ci Serigne taala Mbacke moom Serigne Modou Xaban di ñaan suñu borom yeesal yërmandeem ci moom dolli koy leer tas ñu ci barkeem ci barkeb Seexul Xaddim ak mbooleem ñi nga xam ne jiitu ji nañ suñu boroom jéggal leen te yërëm leen barke Seexul Xaddim fii dafa nekk daara ci daaray Serigne Modou Xabaan ndax kii kilifa gi di Alaaji Cheikh Gueye dafa am wàccuwaay bu mag a mag mag mag ci kër gi muy kër Cheikh Ahmadou Ndoumbe di kër Serigne Modou Xabaan ndax léppam Serigne Modou xaban la Serigne Modou Xabaan a ko defal lépp mën di amit Serigne Modou Xabaan la tey mu am ci taxawaay bañ bañ dem ba Serigne Mamour Dendey tappal ko garaatu Baye faal ni ko yow yaay Baye Fallub Serigne Modou Xabaan ba tey ñu bari koo kooku tuddal turam te eggoo ci Baye Fall bi du ko xam moo tax ñu bari naan alaaj Cheikh Gueye Baye Fallub Serigne Modou Xabaan kon bu demee tey ba am fi lu mel nii ci pénc mi def fi loo xam ni mën na muy wax ni kenn defu ko fi mu am taxawaay bu am solo bu mu am ci dëkk bi loolee euh, kon fii day nekk wàccuwaay moo tax yàlla dogal na biñ ko fi defee mu war a toll ci ñaari at euh, boobaak léegi ziar bi bu accès daanaka mbokki taalibe yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp fi la ñuy ñëw ba ci autorité yi muy monsieur le maire monsieur le sous ak mboolem autorité yi nekk ci euh, région de Diourbel arrondissement Kayal département de Mbacké ñoom ñëpp fii mooy seen wàccuwaay ndax li tax mooy kilifa gi ñu fiy fekk dafay ku yaatu di ko jaboot di ko mën a yaatal di ko mën a jëflante ak ñoom ci jëflante wu rafet ba pare jabootee ñëpp même ñi nga xam ni ñoo aju ci kër gi bokk ci famille bi muy askanu ngeen ndax kenn mën tudd kër Cheikh Mandoumbe kenn mën tudd askanu ngeen te tuddoo kër Cheikh Mandoumbe kenn mën tudd tamit kër Cheikh Mandoumbe te tuddoo askanu ngeen waaye lépp ñoom ñëpp fii la ñuy ñëw moo tax kër gi gisal nga ko sa bopp li fa dajee ci mbooloo kenn xamul nu mu toll loole bu amee ah, dañ koy sante yàlla xam ni nag euh, du nekk loo xam ni luñ naan lii war a wërta mën a nekk la ndax fii wàcciwaay bii moo mel noonu faaw ñu am ci yëg-yëg bu kawe kawe ndax gannaaw bu ñu santee yàlla ci jullit gim ñu def ñu nekk ay jullit ñu santaat ko encore ci lim ñu boole ci ci kër Cheikhul Khadim waaye dañu dellu santaat ko li mu boole ci kër Sëñ Mandumbe ndax Cheikh Ahmadou Ndumbe dafa am taxawaay bu am solo ci yoonu murit histoire yoonu murit kenn mënu ko wax te duggaloo ci Sëñ Mandumbe mu bay ci waaram am ci doxalin bu rafet bu xam ni Euh, lu yéeme la loo xam Cheikh Ahmadou Bamba am na ko ci yoonu murid waaye gannaaw ba loolu amee ma Modou Xabaan moom it dafa ñëw nekk ko spécial ci wàllu wépp ci xam-xam ci daraja ci dayo ci lépp loo xam ne daf ko am waaye dafa jël lépp moom it doxal taalibe gi waajuram mu tedd wa daan doxal muy Cheikh Ahmadou Bamba kon ñun ziar bi nga xam ne dañ koy defal suñu kilifa bu ñu ñëwee ñu nekk ay taalibe euh, amuñ ci lu dul yëg-yëg boo xam ni mënuñ koo takk fenn ndax ku xam kër sëñ Modou Ndoumbé xamuk taalibe ku xam sëriñ Modou Xaban xamuk taalibe ku xam sëriñ Ibra Xujje mi fi nekk xamuk taalibe waaw di ñaanal sëriñ Mamour Dendey moom it suñu borom gën a dolli ay leeram ak mboolem njabootu sëñ Modou Xaban gi gi nga xam ne jiitu nañu ñii fi desit suñu boroom wéeral seen i cër ci man sëñ Cheikh Bintu ak mboolem ñi fi nekk ñëpp suñu borom wéral leen te yàggal leen fi lool ba naa li ñu naalal seen wayjur wa ak seen maam ja ñu def ko nañu ko bëggee te ñu ànd ko ak ñoom. dënd yi bokk na ci euh, mën na ma wax ni commune yi nga xam ni bokk nañ ci ñi njëkk a développé ci ci ci Sénégal ndax depuis quatre-vingt et la am courant am ndox am ligne téléphonique ligne téléphonique ba tey ji Sénégal am na dëkk yoo xam ne xamuñ ko te loolu lépp taxawaay bu kilifa yi amoon moo wax moo waral loolu lépp am dënd yi kon euh, ñi nga xam ne nii ñoom ñoo fi nekk. dama sañ leen soññ ñuy samay mbokki taalibe nañu gën a am taxawaay ci dëkk bi surtout rawatina ndaw ñi dëkk ci commune bi ñu gën a gëm ni kat fii bu jëmee ca kanam ñoom la kon lépp luñ bëgg war naa mën a nekk ci dëkk bi. bu lëg lekkee alom na ko gërëmee coy dañuy wax ni feccum liir bu neexee nday ja mooy jàpp ca wagg ya tey bu ñu amee kilifa gu mel ne El Hadj Cheikh mu wan ñu yoon gindi di dox ni muy doxee ci Dendey ñun bu ñu bëggut Dendey wala bu taxawaay ci Dendey kon euh, duñ xam ndax tey euh, Dendey yoon la ñu def ci sunu taxawaay yoon la it ñu di ci def lu nu man ak lu nu mënut te yéene bi ñu am ci Dendey wax naa ko si jamono yële benn activité bu ci doon def mooy ñun du bëgg ak postu wala bëgg déedéet dañu am dañu am amour ci li ñuy def dañu bëgg maanaam Dendey développé développement xam boo xam ne dafay yéem ñëpp ci wàllu ci domaine yëpp nag. te man damaa gëm ne su ma téyee sama loxo loolee du am te loolu bu ko nit ku nekk gëmee ci ñun danañ ko am amin wu yomb amin wu gaaw waaw kon nañu bàyyi xel rek ni kenn ku ne daal la nga nekk yaa ko mën a yóbbu ca kanam foo bëgg mu egg fay mën nga ko fa war nga ko faa mën a eggale. waaw message bi may lancé ndaw ñi mooy réew mi ñu xam ne ñun ñoo ko moom te bu perte dee am ñun ñooy perte kon nañu gën a delloo suñu xel. gën a ñoŋal sunu moomeel euh, ba pare élection yi nañu bàyyi xel man damay wax ni ki gën ci réew mi yàlla na ko yàlla jox réew waaye nañu moytu euh, maanaam ma mën a folli te mënuñoo fal nañu moytu loolu nañu nañu maanaam nañuy saytu bu baax ki nga xam ne jël nañu ko di jox suñuy carte nañu xam kii maanaam ban lan lan la teg comme programme ak kii lan mooy lan mooy doxalinam lan mooy taxawaayam ndax loolu dafay am solo maanaam xam xam nit ki ngay jëflanteel ban xeetu doomu aadama la lan mooy ay objectif am ak ndax ñuy yaakaar lañ am xamuñu mais bu ñu amee yaakaar bu baax ci kii nit ki ah ñu jéem a góor te jeunesse bi gën a dolli ko ak dal xam ni réew mi maanaam il fallait que jeunes yi am doxalin bu am solo pour ñu mën a bàyyi xel ëllëg réew mi ndax relève dafa am solo ci doomu aadama te it euh, jeunes yi nañ xam ne ñoom ñooy relève bi ëllëg lu mën di xew ci réew mi ñoom la ci seen responsabilité lay nekk kon ñu xam bu baax ni ñuy doxalee xam bu baax fi ñuy taxaw xam bu baax ñi ñuy àndal xam bu baax it ni naka lañuy nekkee ci réew mi ak naka la ñuy mën a gérer seen avenir pour ëllëg. contexte bi réew mi nekk tey ñàkk encadrement bu ñu encadré jeunes yi moo fa yóbbu réew mi ndax gone war na mën a am encadrement boo xam ne war naa rus def yenn yi. wala muy jomb def yenn yi wala war naa taxit mu bëgg lenn li te yow boo nekkee kilifa moo xam waajur nga moo xam mag nga moo xam nijaay nga moo xam sëriñ nga moo xam euh, leader nga ak loo mën di doon donte ak ku mën doon nga xam ne am nañu ne si ginnaawam war na mën a am doxalin boo xam ne ñi nekk si ginnaawam danañ xool li muy def muy lu baax du wér ñu di ko def te du nekk lu mu leen di wax te ndaw da koy encadrer ndax. kilifa dafa am solo ci doomu aadama euh, malheureusement nag ndaw ñu bari tamit nanguwuñ kilifteef ndax euh, fii ku kenn kenn ñàkkul kilif mais ñii dañuy nangu kilifteef ñi bañ ko te li sëñ Bay Jaxate waxoon ni ko mul wéeru waaye da nga yomb bu ma looloo waral tey lii xew di xew te ndaw ñi am nañ fii ay référence ñoo xam ni seen tànk mus a génn Sénégal te it macha allah tey ñàkkuñ dara mais tey am na ci benn jeune boo xam ne fi mu toll soo ko nee bul génn réew mi du ko gëm du gëm li koy wax mais li li war a lool mooy dañ leen a wanu ñun ñan ñañ leen ñan leen war a wan loolu nag nga baal ma mais yenn ci site internet yi yenn ci médias yi am nañ ci pas de responsabilité ndax da ngay gis koo xam ni tekkiwul dara yàllam yàlla jégal nekk ci benn showbiz wala dara ñu jox ko importance jox ko faveur di ko wane nga xam ne léegi dañoo dem ba gëmloo ndaw ñi ni leen réew mi caaxaan moo fi maye dara muy liggéey mayewu fi dara dëggu mayewu fi dara yow boo nekkee ndaw gëm sa bopp toppoo kenn di yappar yappari nekkoo ci lenn lu ñàkk fay la doo am dara doo tekki dara waaye ki nga xam ni day topp moroomu nitam di ko euh, sibooru wala ñi nga xam ne dañuy nekk di def ay caaxaan affaire yu ñàkk fayda ñooñu la ñuy jox cër ñooñu la ñuy jox worma ñooñu la lañuy dimbali mais bàyyi liggéeykat yi bàyyi ndaw ñi nga xam ni ah ay góorgóorlukat lañ nekk ci réew mi di liggéey loolu it kilifa yi ba tey am nañ am nañ pas de responsable ndax taxawaalukat yi nga fiy gis yëpp jaaxaankat yëpp ay kilifa leen dimbali. alors que ndaw ñaa ngi fi am nañ ay ambition am ay projet yu baax gëm liggéey nekk ay soutien de famille ñuy nekk ay père de famille ndax Sénégal ngay gis jeune bu am vingt ans gàddu kër kooku ku war a mën a dimbali la mais duñ ko def. ndax yàllam yàlla jéggal bëgguñu dëgg bëgguñu dëggu liñ bëgg mooy ki ñëw seen tàkk di caaxaan ak ci caaxaan moo tax malheureusement liy xew di xew rek. waaw moom dañuy sant rek ndax ñun ay ndaw lañ euh, amaguñ lenn tollaguñ fenn mais ba tey dañoo gëm ni ñu mën di egg liggéey moo ñu fi mën a eggale lépp lu luñ mën di am ci kaw suuf it liggéey moo ñu ko mën a may. gannaaw loolu it na ndaw ñi gën a delloo seen xel am respe bu ñu jox mag ñi mag ñi am yërmande bu ñu delloo ndaw ñi. état bi fi mën di nekkit na bàyyi xel jeunesse bi xam ni war na euh, xam ni tey jeunesse bi ñoom ñuy avenir réew mi ñu jàppale leen teg leen ci programme bu baax ndax mënoo fekk ñëpp nga jox leen liggéey mais war ngaa mën a def ay moyens yoo xam ni ndaw ñi danañ am courage danañ am bëgg-bëgg toog ci réew mi liggéey mais malheureusement lépp ci jeunes yi amatuñ espoir loolu nag problème la buñ demee ba réew ndawi réew ba ñàkk espoir problème la te loolu. programme la boo xam ne faw état bi yor réew mi moom moo ci mën a dimbali ndaw ñi di la remercier aussi waaw di la remercier sa taxawaay ndax gis nañ ne yow it kuy encourager ndaw ñi nga ku mën a jàppale jeune entrepreneur yi nga te kon damay sant bu baax di sant mboolem rédaction bi nga àndal seen taxawaay bu am solo bi ñuy def liggéey bu am solo ak xibaar yu wér ñuy joxe ndax it loolu it nga baal ma danaa ko ci dugal yéen site internet yi war nañ xoolaat seen bopp ndax yow bëgg ay vues tax nga bind titre boo xam ne ku ko dégg dara sa gémmiñ alors ko la nga bind sax ak ak la nga dugal bokkul wala nga wax ci nit loo xam ne lu baaxul la wala lu ñaaw loolu mën naa ñàkk kon nañu roy ci yow xool taxawaay bi nga am liggéey bi ngay def mu wax dëgg yàlla ñëpp war nañ la bàyyi xel ñëpp war nañ ci jàpp tey war nañ mën a gën a abonné wu ci sa compte ndax xam ne njariñ rek moom moo ci nekk. bis bi dara manqué fi xëy nañ dara si te suñu ndékk yu baax. Mm-hmm. ñaari nag la ñu rey yu am maana yu am jom yàpp ceeb ma nga ne dara manqué ndox maa ngi dara manqué boisson yi fruit yi dara manqué wul sant suñ Touba di sant suñu waajur góor wi alaaji Seex Gueye jàmbaar la jàmbaar lislaam la jàmbaar yoonu suñ Touba gépp la di bàyyi faalu sëñ Mandoumbe xabaan dawul res dawul daay lépp lu ñuy woote mooy jiitu ca biir nangu waa góor yërëm njabootam yiir leen jàppale leen yar leen jàngale alxuraan sunu baay bi yàlla na gudd fan liwajhikal karim safi umri min kadarin ya salwa wa lam yakun li shay'in shadiqin al-awwalin